bi beneen combat ngoog Bawol arbitre sifflé na diggante Mady Diouf bu Bawol ak ordinateur yàlla ko bale yàlla sini ordinateur dina joppe tànk ba Mamadi ordinateur faw na la daan na la jël bu rëy jaay na ko doole mbëru Bawol ba ordinateur won na ne nii ref yàlla sini won na ko doole daan ko lamb ja gaaw na ordinateur ak Babou Baal yéen ñi xamut Baal Baal mooy lu noir mooy lu ñuul ordinateur jëli na Babou Babou Baal wala Babou bu ñuul wala Babou bu noir ordinateur ordinateur daf koy imposer boppam comme ni mu ko defee ca premier combat ba ordinateur Babou Baal CFA ngay waaj moom CFA nga ca wet ga moom it ordinateur ak Babou Baal ordinateur a nga sëgg di ko jàng di ko xool xel li ñuy nga ca kaw xel maa nga ca suuf Babou ordinateur xelam bi ci si tànk yi la nekk arbitre sifflé na fële diggante CFA fii CFA kan la verbal arbitre xaajale na wax ak ñoom avertissement diggante ordinateur siif na ko te ordinateur jël na tànk ba lu muy def dalay daan daan na la jeex na champion ba ordinateur waneet la boppam nax na la daan na la jeex Castor daan na Babou Baal première quart de finale ne Radiakhé bara original ngembo ngemb xonq gën a njool ordinateur ngembo ngemb xonq gën a gàtt noonu laa leen koy waxee pour ngeen xamee ko noonu ordinateur bara original arbitre sifflé nee taxawal fii fëggal sa bi suuf si na deñ bëgguma daral lu leerut Ordinateur jël na ko baara génne waat ko Ordinateur dugg na baara ko dugg ba génn ba comme ay simili ordinateur ordinateur moo nu woon ginnaaw wàcc ci ay tànkam baara mooy rek la ndàgg jëm ca saaku ya ndeysaan fii nag rajaxe ak mbudaay ne la di combat revanche ndeysaan bu ñu fàtte ne dimanche bi passé rek fii ci terrain Gaal gi rajaxe da koo daan moom mbudaay ne baara original ak ordinateur arbitre woowaat na leen daal di jox baar avertissement bu daay ne ak rajax ñu ca digg géew lii moo neex ci lutte simple chaque dimanche nga am revanche jël na ko takk na ko ordinateur takk ko génnaat na saaku muy deuxième avertissement pour Baara deuxième avertissement pour Baara bu ñettee lamb jeex Bara original ordinateur Bara original ordinateur Radiakhé ak Mboudaye ne Bara ordinateur da lay dàqati nga génn saakuy làmb ji jeex Bara original disqualifié trois avertissements pour Bara original et c'est terminé ordinateur en demi final première demi-finale Radiakhé ordinateur ordinateur à droite ngembo ngembo lu xonq Radiakhé à gauche ngembo ngembal wiise arbitre génn seen diggante vraiment vraiment combat bi bu ñu ko amoon en finale aussi duñu wax ndax combat boo xam ne bi rajaxe ñëwee dañu ne woon du yomb gi génne ko ci bi ordinateur ñëwee dañu ne dafa jël kon ñaari xale yi bu ñu tasee en demi-finale ça ñoom ñaar ñëpp mérite bi da leen di revenir waaye nag kii gagné ci diggante ordinateur ak rajaxe njort nañu ne finale bi ci sa loxo jëm danoo njort rek waaye sous-estimé wuñu kenn ndax CFA ak Boy Sadio ñoom ñaar aussi kenn du démérité mooy deuxième finale bi nga xam ne wala deuxième demi finale ku ci daan def nga carton plein wala carton semi plein ndax kii daan finale bi mooy def carton plein moo ñëw ci làmb ji bëre ba finalu ba jël final bi te amul defet ndeysaan lutte simple ngar mi da ciy feeñ njàmbaar da ciy feeñ ndax jël final mooy bëre nga ak ña fa mën bëre nga ak ñañ fa yaakaaroon daat ñëpp ordinateur ak rajaxe ku nekk bal na sa moroom ab loxo ba pare beneen loxo ya moom la ñuy liggéeyee ñu ngay déglu wante teg da olof dafa ne moo ne tekk tekk woon la bi yoon te lamb ju nii à deux de la à deux pas du succès final il est ñaari mbër yëpp daal jël seen temps nag waaw jël seen mal en dee da ngay subir bu dee nga nekk ci sa temps fort c'est normal aussi nga jël sa nga def ndànk-ndànk dimanche bii di ñëw fii ci terrain gaal gi jak sa woote Mbayang ak Momo ñooy dellu si waat dimanche le 6 terrain gaal gi arène Adrien la Doudou Niane Sargal Diagne Djilass le 6 novembre jour bi Papa di bëre ak Siteu Jax moo woote dimanche mise bi dinañ ko expliquer ci kanam 1 million 500 2 million loolu loolu bës ci biir bës yi attention ordinateur Radiakhé en demi-finale ay Jax boo wootee fii def fi 2 million 500 ponkal yi danañ wàcc si. ordinateur jël na tànk ba génnaat rajaxe da koy génne ordinateur lan lay def ordinateur a nga koy sëkkatal ordinateur a nga koy sëkkatal tànk ba la soxla mu ngay làmbatu ndax rajaxe ordinateur jàpp na ko na ko daan daan na rajaxe ordinateur daan na rajaxe lamb jàngay toj ordinateur daan na rajaxe lamb jàngay toj ay yàlla sinik ay yàlla sinik xake na refe nee na ana ponkal yi nee ana Franc ana Serigne Ndiaye ana général Malika ana Ibou obali <laughs> ponkal am ngeen problème ordinateur yi nee bi nee na ponkali hey li ngay booy booy bëre amateur yi wala rawatina say supporter nga xam ne yow la ñuy bëggee gis nga sànq bi nga daane gaay mu mel ni ordinateur gaay dañ ko bëgg ci waaw comme li may wax rek Boucar man moom xam nga aw ma fekk nit ñi quoi amatoo looy privé nit simple. wax dëgg ne yàlla lamb ji moom euh, mënumaa fay nit ñi quoi vraiment parce que gis naa ni ñu ma bëggee booy ñi may nii. samay booy lañ samay rek lañ dañuy bëri na fu samay booy lañ gis naa sax ku ma traversé si ñoom daf may nuyu kon man daal. lii nii dañuy compétir mais balaa ñoo gën a kontaan mbër yëpp ñëw mbër yëpp wëcc. waa Lourdes daa mel ni ñëw daa mel ni poids lourd ñëwaguñu nag. Ah? daa mel ni poids lourd ñëwaguñu. non waaw poids lourd ñëwaguñu. mais ñun loolu lañ gën a miin quoi. sa combat dégg naa ne ñu ngi ñu ngi koy ba léegi ba léegi de taxawagul. mais wooteel fii gars yi jël avance est-ce que du ma bàyyi laa bu simple bi. non ëpp naa am. ah ëpp naa am dama am problème quoi. mais maa lay bëggee. waaw mais maa ngi bëggee ñëpp kar maa lay bëggee bu baax yow. di bëggee Sénégal ñëpp di bëggee sama supporters yi nekk Sénégal ak bu ndaw bu baax a baax maa leen di bëggee bu baax. kontaan naa si ñëpp. jaajëf jaajëf. waaw borom soob borom soob borom caaw la borom agan borom caaw. waaw borom caaw. mais ziar naa la. delloo ziar. Amara. waaw waaw Bougar. Amara na la gars yi bàyyi xel. waaw Mbadou. na la gars yi bàyyi xel. Mbadou non. parce que daa mel ni da ngaa décidé. waaw waaw non si lamb ji laa bokk. Ah. si moom li may wax na gëm-gëm la rek ak liggéey. waaw très bien très bien la quoi. lan ngay yëg war a def final. non sentir lu bëri quoi. Ah, ah. waaw mais maa ngi bëggee sama grand Mame Birame Ndiaye. Mame Birame Ndiaye da ciy jàpp lu bëri quoi. ndax li yëpp moom la quoi. bilaay maa ngi bëggee Mame Birame Ndiaye. nga war a def final a moom. boo war a bëreeg moom final lan ngay yëg. non damay sentir lu bëri. waaw ndax instant gars yi dañoo mbër mag mais gëm sa bopp moo fi nekk dañuy bëre lu waaye am xam ne moom la quoi. kon doo ko may dara. non non bëri rek. looy wax ñi ñëpp sama gars yi ma àndal public bi yëpp maa ngi leen di bëggee bilaa wala ndax li yombul quoi xale bu noo am lii du jërë bàyyi xel quoi. kon kon yokkal góorgóorlu. waaw non yoon la quoi. yokku jërë dolli ñee. essai bëri na pour man quoi pour sama ginnaaw moo tax may bëre. waaye ma ne la bonne chance. ok merci waay. voilà mbokki internet Wassare Lamb yi ñu ngi leen di nuyuwaat. ginnaaw bi ñu leen nuyoo ci bëccëg fii ci terrain gaal gi ñu leen di fàttali ne Diaks Wrestling Production structure boobu nga xam ne Diaks moo ko jiita ñoom ñoo fi organisé gala boo xam ne 1 million 500 la ñu tegal mbëri ci biir gala bi nag mbëri yaa ngi fi woon champion yaa ngi fi woon waaye ci biir champion yi ordinateur bi ngeen jàkkaarloo moo dem final ak CFA mbële may seen ñoom ñaar ñoo dem final muy final boo xam ne. final bu neex la ci biir final yi ordinateur en rouge CFA en rouge ordinateur moo daan Radiakhé en demi finale CFA moo daan Boy Sadio en demi finale kon final baa ngoog diggante ordinateur ak CFA ordinateur a ngi noonu di lagg CFA ngi na le ca wàlla rëdd ca tànk ya tibb na tànk ba eh. ordinateur c'est quoi on passe à la présentation des deux lutteurs On passe à la présentation des, des, des, des deux lutteurs. <laughs> CFA moo yëkkati loxoom noonu ordinateur moo yëkkati loxoom noonu ndeysaan kàmbar na ko moom CFA ordinateur à la position initiale dafa foo xam ne balaa arbitre di siffle fa lay dem xool ndax di woowut laalo wala mentilato wala luri tax lamb boobu arbitre di lamb looloo ko waral parce que le fait que nga niin loolu anti jeu la bokkul boo niinee rek dañ naan la demal nga fomp parce que bokk moo waral arbitre di lamb mbëri arbitre sifflé na diggante CFA ordinateur ordinateur moo sëgg ci ay tànkam wan ñu ndijoor ngeen boo ngeen lu xonq mu nga jël loxoom ba teg ko ca cuisse ba ngeen boo ngeen lu xonq féete càmmuñ dee arbitre bi moo wàcc am ndoddam noonu daal di wàcc ay tànkam xañ leen image ordinateur jëm na siifi ndaw lu nar a gaaw ordinateur CFA ndaw lu nar a gaaw ay arbitre ay arbitre ay waay mbokki arbitre bu ngeen ko séenee bi pel leen ma ko fi mu toog baaxul arbitre dañu lay xaañ nga jóg arbitre dañ lay xaañ nga jóg fi nga toog daa baaxul oh. arbitre oh. arbitre la ngay yàq xamoo ko arbitre fi mu toll nii àdduna la ñuy seetaan aujourd'hui 23 octobre ici au terrain Gaal Gui de Xaar Yàlla on de suivre la grande finale entre Ordinateur et Yalla Sinik et CFA deux lutteurs qui étaient annoncés favoris qui ont honoré leur engagement depuis le début. ordinateur CFA arbitre wàcce na arbitre wàcce na leen nee na leen yéen ñaar li ngeen di def anti-jeu la bëre leen ko rek ci fair play ñëw ngeen ba final neexal leen ko mu neex que le <laughs> arbitre sifflé na génn seen diggante ordinateur a nga féete suuf sëq na loxo ca lan lay def da koy jéem a fàqat na ko fàqat na ko war na ko ndombo CFA rëcc na lay tëral ordinateur tëral na CFA daan na ko ordinateur daan gars waaye seet si nga am looy def naaj bu tàng bi waaw. xam nga ni man ma jago ma ragalu ma loolu de. mais de. waaw yow luy loolu mais sax yaa ngi ñaq nii oh. teg la joxee avance nga delloo ko. lii wax nii avance laay delloo. booy quatre ko bu paree nga obtenir yow mbër nga. kan mooy avance xam nga booy tëngeej bi daal dob dob lu Tëngéej am na ku ma mën a dellu avance am foofu. mooy xam nga Gamou Gueye. Gamou Gueye Tëngéej ku dul Gamou Gueye su ma fa duggee du jóg. nga <laughs> naan ma ay Gamou Gueye. kooku mooy gan Gamou Gueye jëloo avance am yow. jëloo moo la wax loolu. duggal si réseaux sociaux yi nga xool. man réseaux sociaux laay dugg taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire kon ku dul gàmmu Gueye bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam boo amee connexion duggal nga xool bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri man dugg xoolal dugguma réseaux sociaux jéem moo vérifié Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmme nañ piis ak rekeju. waaw loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. Gamou Gueye laay seet. Gamou Gueye ah gis ma ko de waaye gaalam mu ngi nële. gaalam waaw mun nga woowoon gaal bi. gaal bële la mu ngi nële. mooy gaal gële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm gële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Guèye. jaajëf jaajëf. jaajëf. Eh, booy ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. dem na gàllankoor. xanaa du bii mooy gaalam. gaalam la kañ. waaw kon anamu mun nga ma wan gaalem waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. ana gàmmu eh, gay laa Gamou Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ maa jox en sama taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. nga dem nga wax ak añ leen seen añ. tooñoo leen ma Gamou moo ma tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ko maa ngi koy wër si dëkk bi. Isaac mais yow mbër bi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais ñëw na fi ruube ah. ah, na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi

gàmmu gëy bu ko jàppee da koy teg bokkul sax gis nga gis nga lii bokkul sax fa mbër mu mën gàmmu gëy fan la ko ko teg yow lu ngeen wax lu ngeen wax di comédie bi tay comédie la mais yow est-ce que yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow non non non non wóor na yàlla koy daan non non ko jàppee da koy daan attention wóor na yàlla ci da koy daan wóor na yàlla def erreur boo xam ne nii yaa koy daan sport nan la koy daan da koy daan mbër mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi ko lama xam nga lama waaye ci li mu wax sama gaay kii day tëgg gàmmu gëy ak tafa mbër loolu du lamb ma ne ko loolu du lamb combat la ban combat loolu combat la. bu mu nekkee combat combat la. bu mu nekkee combat lan parce que combat bi taxaw na. le 24 décembre bi. 2022. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène nationale ak waa Yaram Art Events. dinaa toog sama kër jàkkaarloog chef affiche seetaan ko. du yow sa kër ngay toog. waaw man stade laa jëm. kon dinaa la woo téléphone fa la may fekk. dinaan sama yu sedd. loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allah arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche.